ami fidèles sportifs et téléspectateurs de Télé Sénégal dañu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax ravi de vous retrouver dans votre tribune revue des sports de ce euh, week-end euh, ñu doore ko ak li nga xamante ni moom moo euh, jëm ci li nga xamante ni moom moo di tirage coupe di Sénégal bi nga xamante ni nag amal nañu ko niki tey ci huitième de yi nga xamante ni war nañ ko door mu mel ne nag tirage soox bi niki ce matin lañ ko doon amal fi nga xamante moom moo di siège fédération sénégalaise bu football ñu mën ci xaarandi nag ay choc yu am solo yoo xamante ni dana dox diggante ñi nga xamante ni ñoom ñoo di AS Pikine ak Casa Sport bu Ziguinchor beneen choc Sénégal moom boo xamante dinañ ko xaarandi ci boobu la huitième de finale bokk na ci Dakar Sacré-Cœur ak ñi di waa Jaraaf li nga xamante ne moom moo jëm ci euh, tirage au boobu lee ni ki sa euh, suba lañ ko doon amal foofu lee ca siège fédération sénégalaise bu football jongante yi nii lay tëddee Dakar Sacré-Cœur moom dana laale ak ñi di waa AS Jaraaf Teungueth FC visa euh, seneps excellence ñi nga xamante ni ñoom ñoo di Ferry Foot ñoom danañ laale ak AS Douane Mbour Petite Côte également dana fa laale ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñii di waa AS Kaffrine Casa Sport de Ziguinchor kii di AS Pikine nekk choc bi nga xamante ni moom mooy nekk choc de deux équipes de Ligue 1 sénégalaise ci huitième de finale Coupe du Sénégal boobule beneen jongante ba nga xamante ni ko xaar muy Kër Madior nekk ci deuxième division dana laale ak Jeanne d'Arc nekk ci national 1 ki nga xamante ni moom di jamono bu Fatick également nekk ci Ligue nekk ci national euh, kon nag euh, noonu lay da jongante di tëddee ñu mën ci xaarade nag euh, ñaari jongante de finale yi nga xamante ni ay match yu choc lay doon diggante ki nga xamante ni moom moo di AS Pikine ak ñi nga xamante ñoom ñoo di Casa Sport bu Ziguinchor beneen bi nag kii di Jaraaf fi mu toll nii nag daal di xëccoo ngir jël championnat bu Sénégal dana fa laale ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di Dakar Sacré-Cœur ñu wax addu ci leneen li nga xamante ni moom moo jëm ci doomu sénégalais bii di Habib Beye ak bi nga xamante ni am Red Star National 1 bu France moom mi nag di doomu sénégalais boobule ci taxawaay bu am solo bi nga xamante ni am na ko ci clubam gannaaw nag ba euh, lay ci Ligue bi nga xamante ni war nañ ko joué euh, atum bi ñu dëgmal moom mi lay di Habib Beye moom la jox euh, titre raaya bi nga xamante ni moo gën a ràññeeku ci entraîneur yi nga xamante ni fës nañu lool ci lii di national 1 foofule ca diwaan bu France France moom mi leen ak doomu sénégalais bi toll ci ñeent fukki at ak juróom benn gannaaw bi nga xamante ni nag daal jëloon na boobu le mu fekkoon ko sax mu nekk ci ay jafe-jafe wante it mu fexe daal ba club boobule nekkaat ci raaya bi ba mujj jël lii di championnat bi moom mi leen nag mujj tekki ndomb tànkam foofule ci club boobule nag ñu koy xaarandi nag ci ay club yu mag a mag bokk na ci nag turu club yooyu le lii di olympique bu Marseille bi nga xamante ni sax moom doomu sénégalais boobule nekkoon na fa en tant que joueur mais amoon na fa taxawaay bu am solo nekkoon fa boobu le moom bi lee di Habibie nag ñu koy tudd foofu foofulee ca diwaan bu Marseille ñu xaarandi rek lu jëm ci li nga xamante ni moom moo di mbir moom le fan la wan ci di mujjee gëtëm ndax Habibie moomu le di doomu Sénégal également nekkoon euh, foofule ca Marseille ndax dana euh, euh, woy di yor équipe boobu boobule di Marseille fi nga xamante ni ñaari doomu sénégalais ñu ngi foofu di tàggatu foofu foofule ñu àddu wax ci leneen foofu foofule ca biti réew ak li nga xamante ni moom moo jëm ci Ligue 1 bu Sénégal Ligue 1 bu France autant pour moi gannaaw bi nga xamante ni nag ñii di waa Paris Saint-Germain ñoom jël nañu lii di championnat bi ak ki nga xamante ni moo di Kylian Mbappé bi nga xamante ni nag ni ki démb la doon amal jongante bu mujj foofule ca Parc des nag daal sargal nañ ko fu baax baax gannaaw nag sax bit bi nga xamante ni dugal na ko même su fekkente ne club bam bi di Paris Saint-Germain dafa ñàkk jongante boobu le moo di Paris Saint-Germain moom jël na lu tool démb li nga xamante ni moo di fukk ak ñaareelu titre am de champion nag a baax foofulee ci Parc des mooy nekk saison bu mujj foofulee ci fi nga xamante ni moom moo di Paris Saint-Germain gannaaw nag ba mu euh, joxe génne ay kàddu moom yëkkati ko moom mi leen Kylian Mbappé di wane ne daal foofu la ca euh, diwaan bu Paris Saint-Germain nag bi mooy nekk saison bu euh, mujj moom la di Kylian Mbappé sax ñu koy xaarandi foofu la ca Real Madrid fi nga xamante moom euh, moo di club bu catalan boobule foofu la sax la dëgmal moom mooy Liga fi nga xamante moom moo di Espagne ñoo nag daal fi mu toll nii ñi nga xamante ñoo di Real tamit wane nañ ne ñoom fi mu toll nii nekk nañu 36 fois champion bu fi nga xamante moo di Espagne gannaaw xamante ni moom moo des sax ci bëccëg yi lu toll ci benn bëccëg ñoom ñi leen di waa euh, Real Madrid nag ñoom jël nañu championnat laata sax ñuy jeexal li nga xamante ni moom moo jëm ci championnat boobule ni ki euh, démb nag lañu doon célébrer li nga xamante ni moom moo jëm ci seen trophée boobule bi nag di nekk euh, fanweer ak juróom benneel bi yoon ñu koy jël ci li nga xamante ni moom moo di ligg liga bu Espagne ñoom ñi lee di euh, waa euh, Real Madrid nag ñu war a xaarandi sax ab doublé bi nga xamante ni ñu ngi koy séntu ci ñoom gannaaw ba ñu qualifié ci finalu euh, Ligue des champions bi nga xamante ni dox seen diggante ak ñii di waa Dortmund boobu lay jongante nag ñu koy xaarandi foofule ca Wembley mu nekk final bi nga xamante ni mooy nekk tëjite lii di Ligue des champions européenne leneen ci li nga xamante ni moom moo jëm foofule ca biti réew ak fi nga xamante ni moom moo di Angleterre ba léegi nag suspense bi mu ngi wéy ngir nag ñu xam kan mooy jël championnat boobu lee di Angleterre diggante Arsenal ak ki nga xamante ni moom moo di Manchester City moom mi leen di Arsenal nag gën a dëgëral bu baax taxawaayam ci toogaay bopp classement bi gannaaw bu mu amee ndam ni ki euh, démb ci diggante ma ki nga xamante ni moom moo di Manchester United mu nekk match choc ñoom ñi bi fi mu toll nii nag jiitu benn poñ kese ñii di ñoom am nañu benn match retard seen diggante ak ñi nga xamante ñoom ñoo di Tottenham mu mel ne nag daal lii di dernière journée bi dana nekk journée bu décisive diggante ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo di waa Arsenal Arsenal ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa Manchester City ngir nag ñu xam daal kan mooy mujjee jël lii di championnat bi nga xamante ni moom moo di championnat Angleterre mu mel ne nag di ki daaw ci li nga xamante moom moo jëm ci dernière journée bi li nga la kii di waa Manchester City mujjoon jël li nga xamante moom moo di championnat boobu lee su moytu tamit ci scénario boobu lañ nar a dem ni ki ren également ginnaaw bi nga xamante ni nag daal ba tey ñii di Arsenal ak Manchester City kenn xamagut ci kan moo ci war a mën a jël lii di championnat bu Angleterre mu mel ne boobu les championnat sax ñoom ki nga xamante ni moom moo di Manchester City ak kii di waa Arsenal ak ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo di Liverpool ñoom ñoom qualifié nañ ci Ligue des champions euh, euh, euh, ko àddu wax ci lu jëm ci également qualification Ligue des champions bu ñii di waa AS Monaco ñoom tamit qualifié nañ ci Ligue des champions ginnaaw bi nga xamante ni nag ñoom am nañu ndam ci seen jongante bi nga xamante ni moom lañ ko amal ci 37 journée ñi nga xamante ni nag moom moo di Krépin Diatta ak Ismaël Jakobs doomu sénégalais yooyu également danañu bokk ci ñi football lii di ligue des champions ci saison bi nga xamante ni moom la ñu dëgmal mu nekk loo xamante ni lu am solo la ci di nga xamante ni moo di doomu sénégalais yooyu la gannaaw nag ñaareelu place bi nga xamante ni occupé nañ ko foofule ci championnat bu euh, France euh, lan ñu jeexalee ko ak lu jëm ci li nga xamante ni moom moo a euh, jëm ci championnat bi nga xamante ni moom mooy championnat Allemagne foofu tamit xam nañ ne ki nga xamante ni moo di Bayern Leverkusen moom jël na championnat ba noppi wante nag lu jëm ci li nga xamante moo di xeex ngir yegg ci Ligue des champions ki nga xamante moo di Bayern moom dëgëral na taxawaayam bu baax a baax ngir mën a bokk ci li nga moo di Ligue des champions européenne bi nga xamante ni moom la ñu nga xamante ni également ñu ngi dëgëral seen taxawaay bu baax bu mel ne ki nga xamante moo di Juventus ñii di AS Roma ak ñi nga xamante ñoo di Milan également ñu ngi xëccoo ngir nag daal mën a bokk ci li nga xamante moo jëm ci Ligue des champions foofule ca diwaan bu Italie gannaaw bi nga xamante ni nag ci ay bés yi ñu génn nag ay jongante bu am solo xamante ni doxoon na diggante ñii di nga xamante ñoom ñoo di Juventus ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di Cagliari moom ilee di Juventus nag di xëccoo bu baax a baax bokk ci euh, club yi nga ni danañu euh, jouer lii di Ligue des champions euh, ci at mi ñu dëgmal mu mel ne sax ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo di Juventus fi mu toll nii ci ñeenteelu place bi lañ nekk ñi di waa Inter ak Milan ñoom qualifié nañ ci li ci wàllu champion ba noppi fi nga xamante ni également euh, moom moo di euh, Allemagne euh, kii di Bayer Leverkusen ak Bayern Munich ak Stuttgart ñoom également qualifié nañ ci Ligue des champions ñu jeexale ko ak Basketball Africa League xam ngeen ne ni kii démb lañ doon jeexal lii di premier tour yi mu mel ne nag AS Douane moom wane na boppam bu baax a baax ginnaaw ndab lu am solo bi nga xamante ni am na ko ni ki démb ci li nga xamante moo di APR Rwanda di armée patriotique bu Rwanda ci teewaay ñaar ñaari njiitu réew yi nga xamante ni moom mooy di njiitu réew bu Sénégal ak njiitu réew Rwanda di Paul Kagame mu nekkoon jongante bu metti lool ginnaaw nag ñi nga di APR Rwanda ñoom ñi li sax amoon bu njëkk bi wante nag ni ki démb daal ñii di waa AS Douane wane nañ seen bopp bu a baax eh, nag ñu am ndam lu rëy ci seen diggante ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di APR Rwanda loolee tax sax ñu ñaareelu place bi eh, ci ginnaaw ñi nga xamante ni ñoom ñoo ek Rigueuse yu Nigéria ngir nag mën a bokk ci li nga xamante ni moom mooy ñaareelu tour bi war am foofu la ca Kigali Kigali Arena ci Rwanda seen diggante nag ñoom lay doon ak ñi nga xamante ñoom ñoo di ak Rubes bu euh, Nigéria ak ñi nga ñoo di US Monastir ñoom ñi lee ñooy ñett ñi nga xamante ni ñoo qualifié ci tournoi bal bi nga xamante ni mu ngi doon di waa AS Douanes nag mujj ci am ñetti ndam ak ñetti defet ñu nekk ci ñaareelu place bi nga xamante ni nag moom mooy permettre ñu mën a qualifié lii di ñaareel tour bi war a am foofu lee ca Kigali Arena lii moo gënoon a fës ci li nga xamante moom mooy revue revue d' actualité sportive week-end bi di leen jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi di leen jox digg daje ajjuma ci beneen revue d' actualité euh, di sportif euh, li nga xamante ni moom lañ leen di indil mu jëm ci xibaaru tàggat yaram euh, lépp li nga xamante ni nag dañ koy jëlee ci biir réew mi ak foofu lee ci réew di leen jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal kenn du ci am.